بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والعفو ان الانسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu leen di nuyu nuyoo bu gën a jotal di ci jullit di jëm ci jullit di sant daje bi ñu daje di jëm yàlla taala ci alquran ci waxtaan tax waxtaan yu jëm ci mbirum tasawuf tasawuf di lu am solo ni ko Oustaz Ahmed loo waxe léegi jullit lépp lu muy jëmee ñu ko yéer ci wax yàlla ak yonentam dëgg ñu ci naan tasawuf tasawuf mooy lan ndax bu ñëwee islam ne diine day ñetti xaaj la iman ak islam ak ihsan fan ci taxaw tudd téere suñu borom bi xam ne moo jaar Seydina Jibril alayhi salaam wàcc ci yonent bi Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te lu mu dundal lu dul ci ñu war a dundal nga tax tëddal lu mu rey loola bu ñu war a dee dama dekkee bu mukk jullit ñu war a jàpp ci téere boobu seen diine seen diine bi nga xam ne ci la ñuy dajee yàlla lëf yoon ak xayaat di leen laaj li ñu leen bugaloon nañ ko jëfe li ñu leen tere woon nañ ko jëfe te lépp di lu ñu war a tibbee ci téere suñu borom bi di alquran ak sunna yonentam bi sunna yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam di ay waxam ak jëfam akut noxteel tasawuf nag fan la mën a dugg ci loolu lan mooy tasawuf baat bi ci boppam fa mu jógee ndax tasawuf dafa ñëw ci islam rek jóge feneen wala ci biir islam la kooku ko ñi nga xam ne ñoo war tasawuf te di ko jëfandikoo ci alquran lañ ko génnee ci wax yonent bi lañ ko génnee seen xarit bopp lañ ko génnee wala feneen lañ jóge loolu li ñu war a waxtaanee ñu ne nag ba bala ko kenn xam dana ci tur yi ñu di ko tàmbalee ci tur yi aussi dañuy tasawuf fu mu jógee tasawuf la maa yu bari ay wax ci fikir yi xare ñenn ñu ne ci suufat la jógee xam nga ci taarixul islam moom ñu tuddee woon taxi suufat yi moo di gaa yi nga xam ne dañoo bokk ci ñu daa daa yoon màkk ñu bëri na am ci ñu néew doole amuñu fi ñu dëkk amaguñu kër jàkka ji dañ ko njëkkee tabax mu di jàkka yi masjid mu nawara ni ñu ko tabaxee ba mu wër nii kaw bi ñu mbaar lii lii di wëcc kaw naaj bi ci tey ñu fekk nag dañu mbaar mooy ñu néew la te amul suñu dëkk daanaka amul ci lu ñu lekk ñu koy def ñu ñu seen dund ci suñu jëfandikoo foofu di seen kër loolu ci jàkk ji di suuf fa ñu ne nag ahlu suuf fa di ñooñu seen yorowoon ngaraw woon ak dund bañ doon dundee ak façon doxalinu adduna nga xam ne moo doon suñu doxalin seen bi jëlee tasawuf ñu ne ak suufatu mooy xar-xaru xarawaayu baat tasawuf ñu ko seetee dana ñu leer ne ay wax la yoo xam ne amul dëgg dëgëru ndax ak suufatu ak tasawuf ñu xam nax ñu ci kalamu arab xam nañ ne du benn kon mënu cee jógee donte dundinu ñoo ne ñëw naa dundinu mu tasawutoon yi xam nañ ne suufatu moom tasawuf baat tasawuf jëluwu ci ñu ne kon ndax ak suufat la jógee am ñu ne waaw suufa la jógee suufat lu mu tekki pour nit la woon il faut que bokkal ci ñu daan liggéeyal yàlla fab seen bopp jox yàlla jaay ko seen dund nekk ca kaaba ga di liggéeyal kaaba ga maanaam di bale di raxas di suuraay di fat di kole di jaamu yàlla dëgg ko rek ba nga xamee ne suufa moom dem na ba ca jàpp bi nga xam ne yàlla jàpp na ko xolam ba dégg ba mu def sax boo ko def leneen seen dara ñu def ci àdduna dara muy def ci mu nëb ba ñàkk lu mu jëfandikoo ci mbirum ñam jàpp ko ba mu daan ci suuf bi nga xamee ne mbokkam mu ko jegee ñëw nañ ko seet si sat ko mu ne la rek tëdd ci suuf ba mu demee di wax wér bi suufa moom suufa day sat ci juróom suufa mu ngi ci doon ëpp la ci doon bopp suñu la xaw du mu xaw sëy le mu mel ne rek fu la xaw leen bu ñu tànn bu suuf noonu la tuddee ñu ne comme foofu la liggéey ñu ne ah ndax am bëgg moomu de su ne jëfin jooju mu doon jëfe ak leneen ci lañ jëfaloon ak na mu joxoon boppam yàlla du xalaat lenn du yàlla niroon naa waat ko seen jëfin ak seen leneen waaye bu ñu seetee baat ci kaw jëfin lu ci suufam ñu ne tax ñu ne ndax suufa ci boppam xabaaram dafa daggoon ba lislaam soo gënoon bi lislaam ñëwee ñu am yeneen i mustamadat yoo xam ne aju ci moom te jullit ñi bala ñu mën a jël seen dund kàddu ci dundu kenn na fekk ñu xam li ci yonente bi wax nga xam ne lislaam xam na xam bu wér nekk ñu kooku wéral ko tëral ko fu wér jullit ñi am ndigal ci li ñu jëlee ci seen téere wala ci seen yonent mën jàpp seen koo ak yeneen laaj yoo xam ne du fi xat ñu ne kon soo bëgg ñu ci suufa ñu ne ci fas la jóge fas jiit yi yemoo ñu ne tax ñu tasoo day xeex ak jikkoom yu bon ba jikkoom yëpp benn bi ci nekk du ëpp du yéeg nekk loolu mooy istixaaratu ñu ne kon ci sàpp la jóge ba tey loolu suñ ko seetee xam ne nax bi maanaam grammaire arab nanguwul loolu ndax ne ko ndax sàpp ak jaar la ak ñaari paa te tasoo saat ak waaw paa bi nekk ñu dem ba dàq loolu ñu ne kon ba tey ci lan la jóge ñu ndax ci baatu grec bi ne suufiya di fekk xikma mu dox soxal di ñoo xam ne danaa dem ba xamal leen ne taxawu ñaari xaaj la benn xaaj bi ci la ñu mën a tëj ngir ci bu loolu mooy xaaj bi nga xam ne dafa jaxasoo ay xekkam yoo xam ne ñu ngi jóge ci yunaan maanaam Grèce ba fa la jóge ak xalaat waa indi ak seen jëfandiku ak waa Faris ak ay pratique maanaam ay kërëb yoo xam ne dañu gëmoon diine ak diine yi ñu mën a gëm daan ci def ñu dem ba dàq loolu ñu ne kon ana jeneen wax ñu ne sax mu isri sell ci la jóge ndax mu taxaw ni baat nañ lay sell du jax du ngi sell du naat du am xamam yëpp àdduna du bëgg daraja du tëral lennam ci lu dul bëgg yàlla ba tey kon ñu nag sax ko waaye sax sax bu def ba tey buñ delloo ci radical yi maanaam baat yi nga xam ne ñooy cësaani yeex yi nga xam ne ñooy cësaani baat bi du nangu taxaw ñu ñëw ba tey yo boobu sax ñu ne kon ana jeneen wax du jóg ñu mën a nangu ñu ne suufa bi ak suuf moo tekki leen xam nga ne dañu tasoo seen bopp wax bu ñu wëccoo adduna tax na ñu seet ay yére yoo xam ne moo gën a néew xëy na gën a néew ñu jar ndax ñu def ci yaram nga xam ne am lu lëj noo bàyyi adduna wala bànneex wala lëj ñu daal sax leer bi boobu nga xam ne du dara ñu rafetee lu dul leen bu gën a grossier maanaam daal boo xam ne moo gën a ñadax gën a ak liggéeyam ak sa xalam ak branchetal bu gën a manque yi gën a yéeg nga xam ne loolu lañ daal sax di ko raat mu mel ne mbàgg mais li set bi ñu ngi koy wootoo ndax loolu nga xam ne mooy seen ci aar nga xam ne daanaka seen moom seen xet nga xam ne mooy tegtal su dugg ci yoonu sa kaw ndax loolu bokk ci la sa kaw jóge wax yi gën a tënk saxal loolu ñu kon ak suufu ci la tasawuf jóge dana leer kon nga xam ne baat tasawuf ci boppam bari na ay wax lu tax daan wax lu tax mu bari ay wax ndax bari na xam-xam yoo xam ne seen cosaan kenn ñu ci dellu gannaaw dañuy daal di wax ne lenn la nangam la rek te kenn ñu ne lu tax wala bu jóge wala ji moom la am tasawuf nag li tax loolu am ci moom daan ko waxtaan yéen tasawuf moom du ko tax a jóg lan tax lislaam ñëw bi lislaam ñëwee waata ko ban toogaay lañ ci toog bañ taxawaay lañ ci taxaw ana nan lañ ci mel ñun lañ ci tëj ñu ne lislaam dañ ko ñëw ngir xam doomu aadama ngir jàngal ko doomu aadama dañ ko ñëw ci kooku ngir jàng lu muy jàng xam-xam xam-xam ñooy nag ñu ne xam-xam day mooy li ci forme jaamu yàlla yëpp li ci jiitu mooy xam-xam façon yi jaamu yàlla yëpp li ci gën a sell mooy xam-xam tey diine ci xam-xam rek la sukkandiku ñu ne xam-xam xam ci boppam lu jàdd la lu ñuy teral la lu ñu tëddiku la ñu bañ fekk sax li nga xam lu mu doon waaye suñu xam rek dañ ne lu sell la ba la nga xam ne ñu xam ko mooy ñu ci xam yi ba xam jeex xam ko diine ñu ne ba tey xam-xam sell moo di ak njabar ak njabar xam ne ñu islam araamal na ko ba dañ ne yokk ko lu
ወይ በሳባ የሚለቀቅ አልቁርአን ከዲን አለ ምንና በመለከ ተስተረመ ወይም ምንም በምን ተወያ ለዚህ አምላክ ልጅ ይችላል አምነን ይላህ ይታንዳ ወጥን ብሎ ወይ ሰሃባ ربي من يجيبنا ويسكت القرآن فقرأت الخوف والوهم من الناس من حكم الإدارة ولا من يبقين ولم يكن عن حرم مسعود ولم يكن مدرب لا تقول أو لم حرف الأساطير أم حدث أم مطلع حرف ولم يكن أم نجيب ولا أم نجيب ولا أم نجيب ولا أم نجيب يوم يانا خمنا عرب lan ko ñu yëpp dañ ko gën a ko ko xam ko xamé ko ko xam bu nit ko mo tax ñu war ko respecté war ko ragal ko ko xam ñu kon loolu ko ci biir saa day mën la ci un seconde lan la moom la jël ñu ah bay ñoom ci fa moom yàlla na ba nga xam ne kenn ku nekk ñu ngi ci yéene kenn ku nekk ñu ngi yéene sa bopp sa moom ñu ngi yéene sa bopp loolu nag ak sa ñu am na saxaaba yi wax toll na comme ay tàppal am gan boo xam ne ci xaritam wala mbokkam yónni na ko bopp xar bu toog mu seet ne man daal jéem a gën a aajowoo te bu ma ko lekkee daal mu nekk ci dikkal bi comme ni ñu lekk ndax sax man xam nga lekk waaye daal yaakaar naa moo gën a aajowoo dana ñaaw kon daal yaakaar naa sama daraja dana wàññi ci diine dañ ko yónnee ko foofu itam am na ku mu gis ne koo xam ko ci gën a lot mu yónnee ko ba bopp xar bi jënd ci ak ko joxe wal nga xam ne kon ñooñu noonu kenn ku ci nekk nga xam ne ndigal ko sa bopp ci ban ndox ak bëgg la noonu nga koy def sa morom noonu lañ bëgg saxaaba yi noonu lañ bëgg ci ñëpp mel ko ak ñu defoo rek xam ngeen mën naa ne mën naa ne ñu rek xam ngeen ndax dañ koy dañ ko nga gis ne kon ابن ابي مثل من مثال فلما تحايل الوجه ان الفهم اخذ مثيرا ويكبر اكثر ومن يكون بلال من الاسلام ولا تقرنا اهلنا وتقرنا فاتوا لا كما لا يقول ولا حمد في الصور ولله الله ولله في الخير بل من يجبر من اجل من يلحمنا لما الله بلغ في من الدين ف يبقى سيدنا فاطمه وجد ولا ولا توقل ولا غزل ولا وكيف يجب ان نعمل سعي سعي وقلب بالله فقير فرصه ba wala ko mooy ko def la ko mu def ba ñu ko ñu ci ñëw wala ñu jox ko yow ci baax ko wax baax dañ ko defal ci ñetti ñu benn bi boo xam ne amul ko def lu lekk ñëw ba ci def defal sa ay rax ci ba tay ko bu ñu ko bu xam ne xarit bi di ko ko ñëw daal ko joxe benn xam ne dafa la def dañ ko soxla boo ko ko ko ñu da taaj ko bu ñu ko bëgg def ci wala dafay def def ci ñu jax ba ñu ko moom mu aaj moom ba amul ñu lekk ñëw sa ko ñu ko bu jox ko ci mbon tax ci mbon tax ko ci alquran ko ci ci adul la wax ak ko ci nafa ko ak ci nafa ko ci wala ci nga xam ne ci borom tag la def ñu ñu ak ko ci ko ci yàlla ak rafetal bu wax sëriñ bi ñu dëgg àdduna ajal ñeneen ci seen bopp fab lu leen la war a jël jëli ko keneen ndax ba jël loo dara woo bu ñu ko fekk loo ko meloo nag bokk na ci ñu lu leen dal ñu natt natt ñu ko jël dañ ko waxtaan ndax nee ñu sab yàlla la te yàlla kenn ko xalaat ndax yàlla fekk lu ko neex nga ko jàmbat jàmbat yàlla lu dañ ko naaw moom moo lay gën ko ñu wax la ñu tey ñu wax ci sama sama neex ñu ngi ci ñaan di ko ko ci man ñu ngi ko mën a jëye parce que ñu ngi mara ci wax ci ñu loxo ci la dina ko ñu la ñu ci moom da mo na day day sappo ko mara ci ñu ko ñu ñu ko ñu wax ci ñoom ya xamé am na benn sax bu nekk ba nekk ba nekk ba la ko bo na ko mel ni moom ak ko mu ak wala ñu dëpp ko la tek ci ma xam ci ba saafara mu def la dajju ñu dara ci jël wala mu rees ñu doon def ci dëkk malaaka mu naqare ko naqare naqare naqare ba yàlla bu dee ñaan bu bon ba ñu jëlee ko waxee saabu mu delloo ci sa ci sa ci jëf ne jëlee ñoom lan daal ci ñu jëloo ba saabu ba loolu bokkul te saabu bu mu ñaan ci laa ñu ci ñu def nga xam ne ci borom wane na ne adduna dara daan ko mu solo bu ko tegee dara laa amoon na jëriñ ci yoo xam ne dafa daan daan te bu daan daan ñu ñu yëram ci ko daan solo dama bëgg nga ñaanal ba dootuma daan mu ne ko xam naa la ñaanal dootoo daan waaye bu la neexee ñu ko xam daa dañ la ko fayee kër ca àjjana mu ne waaw kon nag naa mu ñu koy kër ca àjjana waaye nag ma ñaanal ba bu ma daanoo su ma xam ngoote xam nga ba saa dañu góor jigéen lépp doy nañu waar naka noonu nga xam ne ñoom la yàlla di wax ne gis ne kuy dafay daal yaakaar rek nga xam ne yëpp yaram la bëgg waaye teewul nit bëgg ne yëkkati bañ àgg ca màtt ba ba nga xam ne moom la moom ku ànd ak yàlla ci moom la waa moom te moom la yor tax mu ne ko lu mu fayal nga àjjana kër ba jigéen ñi daal di moom nga xam ne tax mu yàlla di salaat rek moo nangu naka noonu xasaar rek yàlla dama delloo dëgg non comme yàlla bopp dafa ne jënd na ci ci nit ñi seen der ak seen alal jaay ko àdduna loolu la ñuy tëggalee loolu am na tëggoo itam moom la ñu kon bu ñu nee dafa fardu ay la donc yi xam nañ ci nopp yi ak fii ba tamit bidaa ak tuub tuub ci boppam moom it ku nekk xam na ne alquran xadis lépp ko taxal tuub xam nañ ne ñetti tax la am mooy tax bu ci gën a rëcc nga defoo day tuub mais ñu ngi doon daal nit nit nit nit nit mukk nga xam ne boo xasee def ba tuub ko nga xam ne delluwaat seet delluwaat ci borom bu gën a gën a bu dee nag bu la ko daan nekk ba nga delluwaat seet waaye ba muy ci tëj yoon ci yow ci mën ko ñëwee rek ba tey tuub balaa la dina ko mën ba tey rafet yi masaa yi wax na ci sax tuub mooy li nga toll nit fekkoon ne am nga alal mu ngi fas mu ngi wata mu ngi nga xam ne lii ñëw na yow moo nga dellu jox ko ko bu fekkee ni kooku def da nga amoon alal nga jox ko li ko war a doon bu fekkee ni tam ci loolu kenn ko koy doon nga sarta loolu te ko ñaanal ndax bu ko defee bu yem ak amee te ñaan loolu bu nga koy dee mu war a xëy xaq bi ko amee loolu xaq masaa yi waaye def na ko kooku masaa yi xaq ba ko bu ko war a delloo te kooku mën na nekk loo xam ne xaq bi bu fekkee ne yow wax nga ko ni ci ko war a ndax fekk moom sa la ba yéen dafee mais nit bu ñu yoree ne la mën ma baal kon naa la ndox mu ne la baal naa la mu jeex du te bu la wax nga mën la def fekk na nag da nga jiitu yeneen saa yi da nga war a wax sax bi nga wax ni di ko def ba soo ko baal ba mu xam mën na laa baal wala mu laa baal mooy tax bu la baalee baal mu jox waaye bu fekkee ne nag léegi yow su fekk yow ni ci sa laal sama da ngaa gis ne ñu ci baal ko mu ne la baal naa la lii ko la noo ni li ñu yarante mooy la bor yi ci laal wala wujj waaye li gën a def ci mooy bor yi moom bokk ci moom bokk na ci la baal képp ku jige ba xam ne moo tax yow ci mu mën a tax di baal mu ne la mu ne la baal naa la nga xam ne kon taxal xaq yëpp ak ak naan de rawante ni kon naan boo ñaan de waxoon naa maalu ci borom barke taala ba dem ci bàyyi ni li ma sell ñu fenn de xam ne loo tax sëñ tubaab wax ko ci parce que dafa jamaa bay na xar naa ak ci tam nga xam ne booba na xaq lu maru ala ci ñu al tati yu al naqi nga xam ne doomu daan su ko xamee buñ xoolee ñam ni jaru wala wala nga xam ne mooy indi xaal bu wëgg ku ko xamal nit bu ko amee te bàyyi ko yow nag tàmbali daal di gis laaj ko delloo yàq bu wow wow nga xam ne mooy xaal bi bu ko xamal ni te bàyyi ko ba di gis laaj ko mooy nga ko delloo bu ñu tegee jaxoo bu wow wow bu ñu ko tegee lu weex lu may li nga xam ne xale la ba mu tax nga xam ne dafa nooy ñu ko tey di ko lekk lu weex lu mooy sa dugal di ko xamal ko amee nit te bàyyi ko ba di gis laaj te di ko delloo gannaaw ñëw doomu aadama bu nekkoon di jihaar jihaar te xale ba xeex ak noor yi di jënd yàlla tabaraka wa taala di jëkkati baax yàlla ak yëpp ak ngërëmal yàlla ba ñu rey ko suñu borom ay mu bindaat wala di jaar ba ñu rey ko suñu borom ay mu bindaat wala di jaar ba ñu rey ko ñetti yoon yàlla xalaat bu boobee ana bor di jaajëf sa koy ba ba ñu koy xalaat sa koy ba xam nga boobu kooku lu am am solo ba daal di mu rawat na ko kooku ñu tam ak doomu aadama ni ko waxee woon ak ñu taw la am na ak waxam ne keneen kooku ñu tax dana ko teg ci donc dem nañ ba nga xam ne ci biir nit ñi ak seen i muraat ak seen i mbir yi booy ko dina lool bëri ba jàpp ak kër amul ba mu jàppale ko boo xam ne ci xarum jàll mu laxatu ba buum te dañu leerata bari borom ko mu dee loolu ko mu dee ci cëriat ci cëriat l'islam mooy tënku muwaasaat bi da ko koy da ko koy xar na noonu bu fekkoon ne nga ànd nit mu gaal dara ci côté bi amul dara ñu arrêté dara bi nit am na morceau boo xam ne dañ koo kaaroo wala dañ koo takk sa nit wala dañ ciy ëmb dara nga xam ne dara bi ñu sotti ko bu ñu ko takkul nit ki dana dee nga ne danaa soxla sama morceau bi dañ ko jox bu dee dafa fay dee nga xam ne kon teel ci boppam sax jàpp na nit ñi nit ñi ñu ngi ay mbokk yoo xam ne mu ah bu nga xam ne moom la ñu ñëwee ci sax la nga dem sax jéem dañu ko sax jéem dañ koy at sax yooyu yëpp nag taxaw ci sax yi bokkul ci suuf ndax kooku ci suuf nit ki wax nga xam ne suuf la mooy nit ki la nit ki ku ci la nekk am na waay boo xam ne benn jiw boo xam ne dañ ko rayoon ci kaw mooy maanaam li gën a ñu ko rayoon dana ko yàlla ci saa xam ne tuub na ji naa ne tuub na tuub boo xam ne bu ñu ko jëndee woon waa dëkk bi ñëpp daje naka noonu beneen waay bu ñu rayoon naa bu ñu ko rayee moom itam mooy li nga xam ne dafa ko rayee mooy ci kaw ba noppi bu ñu ko rayee ba noppi yàlla ci saa xam ne ñaari yaa topp tuub wax saa ci jëw ci yore wax ak ñax maa noonu yooyu ba ñu fekk mbaam mu ñëw wala ñu daal taxaw ñu nekk ba ñu ñu ñëpp ñu ñëpp ñu tàll seen baat mu xew bu ñu ñu leen def lekk ñu leen dugal ndax waa ji leen di seen am ñu ñu ay mu def ci àjjana ndax loolu war ci gëm tuub ci gëm tuub moo tax fexal ba mu sell sell boo xam ne tax na mu daal di nekk ci àjjana nekkiru àjjana sax sax taxawoo bi lu ñu wax la waxtaan bi la waaye ba tey jamono bi laaj ko xam nga ñun ñëpp ñu defar sax képp ku dee yaa defar sax te xam ngeen àjjana xaram ci biir lu mu doon seet yoon bi sa laal dama dugal jël waaye lu mën a li waa misaal la ak ñoom ngeen waaye bu fekkee ne def amuloo taw dëgg bi bi xëy na dina dina yoon nga xam ne suuf kon li nga xam ne noonu ñu waxee noonu lay fexe nit ki yoon bi sa laal dama ci bopp nee na di leen tuub man de dinaa jiitu suñu borom bis bu nekk suñu yëngal xam ne wax suñu yëngal rek waaye su la dee ndax moom bopp mi mooy jiitu rawatina kon doomu aadama ko comme nit ñi taxaw ci suñu toll mooy tax moom ndax suuf si mooy jënd ci jënd ci sa bopp jënd ci jënd ci yàlla ndax ku tuub bàkkaar bu mu doon ku ko tuub mu mën a tax yaa ngi nekk mu am bàkkaar yaa ngi nekk amul bàkkaar nit bokk na ci tuub na nga yéene sa bopp di ko waxee woon sànq yéene yéene sa morom yéene yéene sa bopp na nga yéene sa morom ñëpp sa morom mbokk bi jël ndax tuub ki nga xam ne moom la ñu mën a tuubam dëgg day ko làmboo makarim axlaax makarim axlaax mu bokk na ci ku la xañ na ko jox yow ku la tooñ na ko jéggal képp koo xam ne bokk na la bañ laa def ko bañ bokkoo yow yow na nga jéem a ci tuub ci boppam ñu seetee ba xam ne sàcc yi dafa bari dañu war a waxtaan dafa def bari xaw mu gàttal ko gannaaw tuub ci boppam mooy wax nañu sumb ak jóoxoo ci sinaamu si xaar ak taw ko saxal moo ci topp saxal moo ci topp mooy naka nelaw nekk di jaamu yàlla guddi wax li nga xam ne nit naa ngi nelaw wax nañ te suñu xarit bi naan sax dañu bàyyi la ko ci nekk suñu naa jëmale ak suñu naa ñu xaaj kenn ku ci nekk di nga faatoo diir bu yàgg kenn ci borom ci ci ci baat yi gis na la ñu la woon ba nga leen man de boole ma jaamu yàlla suñu borom fay na ma ko ba mu jeex tàkk léegi li mu defee moo di rasaay ndam ji ñu jëm xam ne kon yow la santaan nañ ci bu ko kenn mën ngaa jóg nga dem jàpp julli boo ko mënul mën ngaa jóg jàpp yor sa tur nga ci jaay boo ko mënul nga jóg jàpp ko toog julli lu diggante boo xam ne biir boo xam ne mën nañ cee rab jàpp ba mu am bu fekkee mënu la loolu xam ne mënu la sax jóg jàpp ñu sant la bopp dina baax sax ñu jóg bopp duñu rek bay def dara nga xalaat bopp yàlla wala nga xalaat sa saa yi tam sax loolu ci ak bu gën a jàpp rek la soog a jëm ndax loolu lu suuf bu fekkee ne mënu la jóg jàpp julli mënu la jóg dem jàpp di tudd yàlla mënu la jóg dem jàpp toog waaye mën ngaa jël rek dund lu saa su ñëw ñëw daan la boole ñi nga xam ne taxaw nañu guddi te bu ñu leen di fay doo taxaw di jeexaan daan la boole di fay nga xam ne kon yow lu mu ñëw ñëw ci guddi am na xiyaaba boo xam ne leneen xam ko nag yeneen bi am xam ne bopp nga xam ne lépp lu mu def jaamu yàlla la boo xam ne kenn mënu ko jaar jàpp yenn naa la asakaam sax yeneen bi lu borom baax na la nee na ko inna la tafi nahay saxan sax la ne ko inna la ko yàlla xam na ne taxu adna min ci sey ni min ci mo ci ba ci min ma ko la ko dawna alhamdulillah ne ko dina la seen ay saxam bari mooy bëccëg bi sa xel day wër day day séddal ko ñi nga war a àtte ñi nga war a jiite jiite ñi nga war a sant ñu nodd xale bi nga war a jiite ak ñi nga xam ne dañu leen war a jàngal ñu war a jaamoo yàlla ak ñi nga xam ne dañu war a natt asaka ak ñi nga xam ne dañu leen war a waar ak ñi nga xam ne dañoo def lu dul noonu nga war leen ko tere ak ñi nga xam ne dañoo am ay jaaxle ay gàttal ñu di dafa laal yooyu yëpp dana séddale séddal ko sa xel day séddal ko ba teew li nga xam ne moom yàlla ci yow doo ko mën dul guddi li nga xam ne ay saxam bari waaye kon nag da ngay julli ci bis bu ñu bari suñu borom xam ne sa borom xam ne guddi da nga julli lu yëg bu ñu seet yow guddi gi ñetti xaaj da nga julli ñaari lu yëg ñaari xaaj yi wala nga julli genn wàllu julli bi di ko def di ko def ba la jëm ci fakkat nañ ci yem ci kër koo xam ne koo xam ne du nopp du tëb mukk ci te yéen ñëpp jàmm wala rek te wuñ ñu sant ko julli ko nga xam ne kon bu ñu wax saxal sa moo di foog ñàkk nelaw lu am am solo la lu sa toog bu ñu ko boolee seen kom dañu fekk nag xam nañ la xew ndax suñu borom tabaraka wa taala fekk na gaa ñi nga xam ne dañuy ñàkk nelaw bu bari guddi mu ne dina mu fekk ni ci jannat ba mu ñëwee ah الذين معكم ربهم انهم قد خلقوا مؤمنا كانوا قد ينزلوا مما يهدعون وبافعالهم يستحيون وباموالهم حق يدارون الى اهلهم ثم تستجعلهم الله مقامهم الله كاجنا يصير ذلك الملك كل مكان ونحن نحكيكم لا يستطيع حمل الله لكن الله تبارك وتعالى تجنا يعني نحن بين نحن لو نبدل نحن متقين في جنة مؤمنين آخذين ما أمرتم إنهم قد خلقوا مؤمنا كانوا قد ينزلوا مما يهدعون وبافعالهم يستحيون وباموالهم حق يدارون الى اهلهم ثم تستجعلهم الله مقامهم الله كاجنا يصير ذلك الملك كل مكان ونحن نحن نحن نحن نحن رجل جمولا كان خلينا من المال هذول من يوم الله يوجد وبنفس حال من السفر تبين جد جد في وقتين جد لأن كل جناه لأن في صلى الله عليه وسلم من لك القرآن واحد يفك من لك تجريدا من فك أخيرا في صلى الله عليه وسلم بسنة أخيرا في كل قاسم لا لم يشارك هل التصور يقول لهم يسير بل يقوم بقول يقوم بتصور ودي عزة كلمة العزة مالي يد سبب سبب سبب أدنى من المال ما أنت في من المال مولى من مولى الجنة من مولى الوردة من مولى المياه أو الكلام بواقع من الجنة بس إحنا يق يقوم بين من الجنة بس جنب مولى أنا لا يبقى يق يقوم ndax da nga toog ñu di waxtaan yow ñu la ko mën a sant jëw rek waxtaan ñëpp jëw la lool wala wax bu yoon ñëw wala la wax loo xam ne dafa lay dem loo jëm ci adduna nga seet loolu da nga ko ne faras la ci man ñi nga xam ne alquran nee na الذين توفوا ما يزال انتم خالقون خالقنا ما تبعث من قال فلم تكن الله ولا تكن خالق فيها من خمس بين لنا وفي سبعه من يكن فيهم ëpp leen doon di leen fitnaa ba seen jigéen rek bu yem ak yaa ne bu ñu ñëwee yéen ñu seen xabaar bu ngeen yëpp yi yéen ñu ko dama am yoon doole te nit ñu am doole ñoo yàq suñu biir ñu leen France ak Sénégal dafa yaa ñu woon ngeen daw naka noonu kon ki nga xam ne dem na ba ci suñu bi ñu nekk yàqu na te foo nit ñu wàll ko rakara bi ñu ci nekk te mënu ko jigi mu war a daw mooy ñu ñëwal ak jaxasoo nit ñi mooy ko jël xam nga tey waxe sàkk yii na fekk ni kat du koo xam ne kii société bi aajoo na ko muy professeur bu war a jàngale kooku boo ci jàngale ni dem da nga xam ne du def jàngale bi daaw ak la ñu daan ne ñu ngi daal ñu rek dama koy jàng dama koy wala ko yàlla ci xaq yooyu ma waxoon daan ñu ko dundal kooku kon war na ci moom bu jax ko ñu ñu jàngale wala muy docteur boo xam ne dafa war a faj te di ñu keneen boo xam ne ci dana taxaw taxawaayam moom rek la ñu liggéey ci aajoo pour mu faj yooyu kooku itam mu dem wacc ko faj na dem dem ah dafa doon gërëm ko ñu ne nag léegi bu ko fekkee léegi xam ne mënu la yàq-yàq bii ci àdduna mën koo jënd mën nga bañ a ñëpp yàgg te itam ñëpp suñu aajoo suñu ndax ñeneen ñi ñoo xam ne waruñ ko war a def ñu koy def te itam dara bu muy doon ci muy ci rëy boo xam ne dafa xam nit ñi parce que bopp du ñu ci loolu te itam wéet boobu muy wéet dana ko indi ay xalaat yu am njëriñ ndax dana li alquran santaane ñu ñu waaru ci caw ci yàlla yi di xas ñu ñu naan bokk ay naay suna wax dana yomb na ay wax naa moo gën a loolu ñu ak ci lay daaw ñu gën a ak ñu wax ni ba maanaam ñu leen ba na ay taw ci yàlla ñu rek biir asamaan ci suuf bi ngeen ko moom ñu am soxla te ñu waaru biir ñu nga xam ne loolu yëpp dana ko tax moom mu am xalaat gis ne dina ma rek ko laaj ci yàlla ñu la maw te wéet moo ko moo tax ma ak saa yooyu te kon dana koy ñu mën a jël dina bi ndax dinañu sax même sawaay yi ñu ñu ci adduna yi ñi nga xam ne def nañu découverte yu am solo yi wala ñu xeewaane dara ñu ñëpp dañu leeral ndax yëpp war a tax nit ki mën a xalaat mën a génne dara ba génne at yi sax lépp lu ñu ci jëfandikoo te mu am leen jigéen doomu aadama yi ka ko doon génne dafa leeral léegi ñu tam nit ci jëm ci yàlla tam moom la ko wëpp mën a adhéré ci yàlla ndax moo ko jox xalaat moo ko wax ko tamit ci yàlla loolu nga xam ne moo la tax a yëg kon loolu bokk na ci bokk na ci waaye sax yooyu ñu tëral bi ci amul mën na tax ñu nga mën a wér sa doon am bàkkaar loolu moo tax jox ko daal li nga xam ne def na te taw bu dul jël ko bàyyi sa jur jàng ñu daan jàng ko ci teeram ba mu amul sa jur ci Bagdad bi nga xam ne am na fukki at lan bëggoon àggagu ko waaye mu gis na sant naa ñu wax philosophie fii na fii boo xam ne xalaat ba yi ñu ngi yàq diine nit ñi ñu ngi fës seen bopp te jamono boobu la ñetti masal yi nga xam ne ci la masal yi tax ñu ngi taxaw ci xalaat bi ci la wax ko ñett mu def ci demul alal ak adam ma am billahi bi ci yaay ak xasu ak gisaay nga xam ne xëy na yow ñu ngi dugg ci jataay sax demoon jaay ko ak xalaat yi nga xam ne noonu lañ ko noonu la ko ñoom tëre ak ñi nga xam ne ñoo ko diine yi di am ñu koy gis tam xalaat nga xam ne yow gis nañ ay yàqu-yàqu yu bari la yoo xam ne bu continuer ci xarala bi ñu nekk dana am ay yokk ay maqaam yokk ay xam-xam yu bari waaye nag ñooñu ëllëg mën nañ ko taxawal ne ko koy sunu xàq yi moo ko taxawal génn ci xarala ba dellu ci saabaraay bi mu dellu ci jàngale naan ba day sax ca xam bàyyi woon waaye nan daan jàngale bu ñu ci bokkul lam daan jàngale la mu na mu daan jàngale bokkul lam jàngale woon day tam ñu ko jàngale dafa def xaalis am foo xam ne un ko bi rek ñoo ko koy def mu sax itam ci ne ba nekk sax dee ñu koy ñu koy ñu koy kan bu bari ci dënn nga xam ne moom ko la am na sàcc yooyu yëpp njëriñu ko la mën a ci woon jamono bu mayee mu ko dana def xam-xam yoo xam ne nii xam-xami baatin la ndax nit ki wax boo xam ne dëgg jihaad nafs yi ba nag noonu léegi nga xam ne ñooy gën a mën koo xam ne ci gën a xorom ba nga xam ne nekk nañu ci al insaan kamil nga xam ne am na teg ci li gën dëgg dëgg ci al axlaaq al axlaaqul xasana dootu aajo wala xalaat pour xam-xam yu bëri day toog rek xam-xam yi di fàttali ko dundoo ba nga xam ne diggante xas ak xit mën na caa xam loo xam ne mënoon nay xam ci téere yi ak ci téere yi gën ci mën ko dama xam ñu ne la gën a am yëpp fexe rek
te bu doon ci yenn réew yi jaay xatal lañu dañu dalal d'accord réew yi muy Sénégal fii ci Dakar def nañu limal waaye bu tee ba tey rek ñu ngi aajo woon limal ndax jox nañu leen ay warukaay njëriñoo dëgg la ni ci xéew loo ba mu ñëwee aljuma ba tey it seen bopp jullit rawatina yéen waa Dakar yi yéen a leen ko jox waaye ñàkk ay moone ay lëmu wax kat ni tax na ñu ñoo jot ci ñëpp dafa léegi nag mbir mi dafa xaw a gudd ndax seen yéene ak lii ñu woote tey moo toll noonu mooy alquran moo tax ñu def ko jot ñetti fan moo tax nag loxo bu nekk xaj ci rawatina suñu mbokk jullit ñi nga xam ne ñëw nañu ba toog ba jëkk ba gis ak seen bët ñoo ñu am nañu ci aw sat ñuy tàllal tàllalaat suñu loxo di sàkku ci yéen ngir mën loo xam ne danañu ko mën a simmandikoo yoral ko ñii ngeen a xam ne ñooy ñooy yàlla ndax yeneen bi alayhi salaatu wasalaam laajoon nañu ko naka ndax yàlla am na ay bopp ci kaw suuf mu ne waaw yàlla am na ay bopp ci kaw suuf mu ne ko ñooy ñam la mu ne mooy waa alquran waa alquran la ñu sàll nañu suñu loxo bëgg lu leen di mën a yor ba di ba di gaaw ñëw ñu dimbali leen ci loolu ñu ngi leen koy ñaan yéen suñu bopp julli bu ko defee ñu dem ci sëriñ bi nag mu àggale ñu waxtaan ñu soog a gàddu ci débat yi asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nii leen nekk ci ca kanam lu am naa ci
maanaam kooku nga xam ne dafa newoon ci wet yonent bi jëw maanaam mu wax kooku ne ko ëpp du moom maanaam yonent bi ne ko xaar si ko mu xaar si ko lu mu def ndax koo xam ne jëw nga nit te xamuloo xaar si ko kooku wala mënuloo ko def ndax koo baalu sa baaloo sa borom ndax yàlla dana la baal wala déet ñaareel ba ki nga xam ne boo ko masaan amel bor di ko mu ñëw di la fayu bu fekkee ne ci jamono naaj la maanaam bu la fekkee nga toog ci kër moom su yëkk ci biir kër gi ci naaj bi lay taxaw di la fayabu maanaam may laaj ba xam ndax loolu da cay jublu woon bañ a jiital nit ki am da ko ñëwoon wala léegi ak itam koo xam ne ci da ngay fayaku bor dem ba waxtu tëdd jot nga dugg ci biir nit ki ba muy fanaan di ko fayeku may laaj ba xam ndax kooku donte lay kooku da nga amal bor moom muy dugg ci biir néegam te fa muy dugg ko fayeku ndax loolu dara war na ci wala déet wa salaam
dafa am yoo xam ne dañ ko bëgg a laaj loo xam ne dana ko see leer waa ji ci àggee sol bi yoo xam ne mooy gëm yàlla te ñu jàng ci faj yi dañoo wax ne
boo gëmee yàlla day dem ne lépp loo am yàlla moo ko am li ngay mënul amal dara nan bu dem nañu ne li ngay mënul amal dara ci boppam rek ah ñu wax ne alquran dafa wax ne ah uran yëpp maanaam safara ngay dem kon nag dinaa yàlla mooy amal li ngay mënul am am dara amal dara naka la nit ñi rëy ci bopp dinaa li ngay mënul dara dinaa nit ñi waxaat ne lépp loo xam ne am nga ko ci lu rafet yàlla la jóge lépp loo xam ne am nga ko ci lu ñaaw sa bakkan la jóge ginnaaw milieu bi amul dara naka lay amee boppam lu rafet ak naka lay amee boppam lu ñaaw ñu dellu waxaat ne itam yàlla waxaat ne ci suñu dégg toll na leen nit ñi toll seen bopp ku mënul boppam ku mënul boppam dara naka lay toll bopp naka naka lay toll boppam te ci yéen yàlla ko doon toll ci dafa xam loo am dafa xam waaw Diop Tom Tom lay la tey ngi kon bismillah laaj bu njëkk bu Ahmed Diop mooy sax salaam xam ne ni yoon yu gën ci yàlla la ndax nit mën naa am yeneen yoon yu ko taw noonu la waxal boobu waxal boobu laaj bi li ma di ko laaj moo di ne ndax bi ci boppam man naa ak comme bu daal ci kaw daal di tënk ko ci kaw tënk daal ci kaw fere maanaam jaar ci fere am daal di bëgg ak ak comme wala comme bu daal ci kaw loolu mooy loo xam ne nii mënu la nekk ndax sharia ci boppam suñu diimaanu bopp suñu isaan bopp suñu ahsaan bopp soo xamee ne ahsaan mooy suñu dañu leen ñu wax leen ci nekk li wax imam Malik ne képp koo xam ne da nga jàng ko jëfe ko maanaam nelawoo ko te jaaroo ci saq maanaam jëfe yoo saq da nga ko sànni fële ci sa rek lañ ko taw jën ci yàq la jën ci yàq mooy koo xam ne dafa tawal jën ci kaw ba ñu jëm jën ci rek te buñ seetoon xolam ci biir ngëm yëpp ko ñoo gën maanaam ngëmu manqué kon tawu te ni ñu ko jàppalee te ni ñu ko jàppale jàppale taw ndax ñoom ñett ñëpp buñ ñëwee ñu jaar ñetti xaaj la benn xaaj bi ci ñëw sa borom moo bëgg def ñëw la mu di manqué li am nag moo di ne tawu mooy jàpp taw ak taq ndax mooy sellal mooy jàng suñ jàng borom te ñuy jàng borom bu taxawal julli bu kabaree xam nga rek boo kabaree ci biir julli ndax ixraam xarmal mooy def ci bu julli ci lenn mu ni àtte lu mel ne contrat su mel ne ko ak yàlla moomatoo sa cër lan moomatoo sa xol moomatoo sa xel sañatoo xalaat ci mbiri adduna dara sañatoo jëfi ci mbiri adduna dara sañatoo xool mbiri adduna yonent bi salaam la nee na allah bu xëblat mu sàmmi yàlla mu ngi ci xëblat ak ci lu ji kon xelam xolam ay bëtam ay noppam ay cëram lépp yàlla yàlla la ko war a jël lu mu ci wàññi lu mu ci jëmale ko mooy sàcc na nee na sàcc ci julli moo gën a dagan sàcc ci alal kon nag sàcc ci julli xaraam na sàcc ci julli li ko waral moo di bi nga signé contrat bi ne yàlla jox naa la sàbbi bi ba nga naan asalaamaaleykum yàlla moom ko moomatoo ko nga jaay ko ko moom ba noppi nga sàcc sa dara ko gisee sa bànneex bopp wala sa njëriñu bopp wala sa dara war la loolu moom ñu war bi nga ne allahu akbar tàmbali ci jàng fatiha nga xam ne da ngaa teewlu na suñu borom yaa ngi taxaw ci kanamu yàlla suñu borom jàkkaar loolu yow tabaraka wa taala ñu ñëw di def teewlu sa xol yëg ko ba mel ne yaa ngi jàngoo moom nga xam ne poids wu bii saa wu màgg ci mu ngi lay écraser nga di jàng alxuraan mu wóor na ne jàng jàng fatiha muy alxuraan di wax yàlla yoo xam ne yàlla xepp moom ñu ko wax nga jàng fatiha jàng saar dam sa jëm ñi nga xam ne ñu ngi ko fonke di sëgg ci kanam yàlla ngir màggal ngir màgg nga sëgg këpp sa jëm sa kanam gën gën a fonk ci sa jëm nga këpp ko ci suuf ngir di wax wan yàlla ko wàcc naa sa xel jëm ci fi nga xam ne ci lañ di ndéewal ci lay dellu nga génn ci yëpp teewal ko nga xam ne léegi nit moom a ci temps ba ba seen mag garab yëpp nit yàlla loolu taw xëy na ñu ci sa xel ci sa tawawu bi sa tawawu bi bu fekkee ne ba nga kàbbaree yaa ngi xalaat mbir yu àdduna ba sa jëfal ma de fekk mënu la ne mënu la ne dara mënu laa jàpp mënu laa critiqué mënu laa jàpp foofu la ciy jàpp tasawuf iman itam waxoon naa ne mooy benn xaaj bi nga xam ne mooy xaaj yëpp ci kaw yi xaaj bi def mooy wax ni lay seedee yoo jullit ñi leen seen mbokkum jullit daa bu ma demee na ngeen ma jullee na ngeen ma sàng na ngeen ma suul ci sëggi jullit ña na ngeen ma jubalatin la ndax ñu naa ak leen laa ilaha illallah ba yow ñoom ñëpp ñu dellu sama kii nga xam ne mooy wax bi ak meral yàlla bi ak jëfam ak turam bi nga xam ne dañ la koy jàng li nga xam ne wax la mooy benn xaaj ba xaaj bi def ma ne xol xamu xol yàlla ñu ko bind lépp kon tasawuf kenn mënu cee jaar te du tey la lenn nag am na loo xam ne moo tax mbay mooy dafa nit tasawuf dañu ne nit ñaari xaaj la xaaj bi mooy matériel bi mooy esprit matériel bi mooy jëmm ji jëmm ci suuf lañ ko bind bu ñuy tàggoo la suuf lañ lay koy tuuraat waaye ki nga xam ne mu def ci almalaw la laa koo xam ne yenn bu dee amee bu jàpp ni koo amee nit ki gannaaw ñaari unsur yooyu la ñaari unsur yooyu buñ ci gën a dimbali dana lor sa def waaye wax boo xam ne loolu di na ki nga xam ne mooy cosaanal dëndëm njëkk ki nga xam ne mooy cosaanal leer dafa gudd façon kooku la am ngir wax nit ki ne muy def ci jihaad bi nag ba dem ba nga xam ne ruuxam day ëpp doole ci mëm ba nga xam ne ñi nga xam ne dara duggagul ci yaram dama xam ne woon yàlla te ba suñu borom wax tabaraka wa taala waxante dama leen naan yéen ala ci biram ndax du ma seen borom tamit ko axata nga xam ne borom moo tàbbi ci yaram dama mu tàbbi ci yaram dama ne dugg ci kaso ku ñu tëj ci kaam koo xam ne amul volontaire amul tuuti nga xam ne xam jëf kenn kenn ku lépp bu solo xam dara benn leer tuuti dugg ci nga xam ne roo suñu tëj ci yaram noonu la mel bu fekkee nag mu ngi néewal doole unsur boobu jaamu yàlla ñu def cosaan loolu ñu waxoon ne mooy cosaan mooy kaw bi di mën na ñu toj tabax bi leer bi gën a doon leer nañ dem na ñëmu ci nga xam ne day roof ëpp na doole yëg caani ba nga xam ne attaque terrestre yi ko takkoon takkoon yeewal ci kaw mu di jéeg ci ak gis ci ak sañ ñu xalaat ci ci am ñu muy waxal ak lekk lañ naan ne bànn ak na yëpp yëpp néew na doole mu mel ne ku dee ni roo ba ci delloo ci comme noonu bu njëkk nga xam ne kooku pour yónne yi bu ñu wéyee ak seen i ba ci ci yàlla ci yàlla ci yàlla ba seen sa seen bët yi seen kër yi ba nga xam ne seen lan nga koy yëngu di dem di def di def ba nga xam ne maanaam pour yàlla bu ñu waxee ko taxaw seen xol dañuy dem ba mujj ñu mel ne dañoo jàll maanaam bu boobaa la al al mulku alamul alamul malaku ubbi ko ñu jàlloo roo di jàll di jàlloo malaku di jàlloo arab jàlloo kursi di liir la ko màqoon nga xam ne dañu ci am ñoom jàlloo roo di jàll jàlloo malaku jàlloo arab jàlloo kursi di liir la ko màqoon nga xam ne dañu ci am ñoom ñu dem ci kàddatu boobu ba nga xam ne dootuñu aajowoo ci wéet ci yàlla bi yàgg nga xam ne daañu toog sax yoo xam ne nit nit loolu la nga xam ne loolu mooy xam-xamu awliya yi nga xam ne lenn ci xam-xam awliya yi loolu dañu ko toog am na ci ñoo xam ne dañu jaarale seen tool yi yoon woo xam ne dañu jaar ba àgg ci loolu te ay yéen jàng Cheikh Abdoul Aziz Dabakh jàngul woon Cheikh Abdoul Xawaat jàngul woon Cheikh Abdoul Aziz Dabakh moom Ahmadou Moumbara mi nga xam ne mufti la bokk na ci ulama yu gën a xool ci Maghrib masal yi nga xam ne ulama yu jaax nañu ci yëpp nga xam ne seen wax dañ cee wuute trop moom la ko daan laaj nga xam ne moom àgg ci maxamam xam-xam moo xam ne day dem ba àgg ulama yi bu ñu garante mu xam loo xam ne dana mën a kii ci gën a wax ci wóorul waaye ba nga xam ne seet na wax nit dara du ci seet xolam bu demee ci Abdoul Aziz Dabakh bu ko laaj moom mu jàng bu ko ko waxee day seet ba xolam leer ko nañ borom borom xam-xam bu ñu ko waxee dama ne dara mu wóor sa bopp jàng la naka moom ci ay ay yu xawaat te Ibn Abdul Wahab Sa'laan mi nga xam ne moo ëppoon xam-xam moom itam noonu jamono nekk ci mu def fay ku doy waar moom kat yi mu daan def yëpp ci ay yu xawaat mi sëñ ñoom ci jàng la ko doon laaj ci ay yu xawaat boo ko tekki loolu nag mooy xam-xamu yoonu xol li ma waxoon ne nit ñaari unsur la benn unsur bi nga xam ne dem na ba ak nit bi ak insanul kaamil nga xam ne ruuxam dafa mat sëkk sëkk aaju woo ci xalaat dafa mel ne ku jàndoog seetu seetu bi su war ci nekk maanaam image bi ci àdduna yëpp yàgg jàndoog di ko yëg xam kooku mooy yëpp na ko mokkoon ñooñu dañuy dem ba nga xam ne seen xam-xam day yee ci xam-xam jàng xam loo xam ne aadam ci mën na xam ni ak seen ko xam xam-xam boobu mën a lenn ci xam-xam anbiyaawu boo ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam guddi gën a naan ni mu amee ñetti nelaw amee nag nelaw doomu aadama dem ba am nelaw malaayika am ba dem ba am nelaw leneen loo xam ne ci malaayika ci yeneen ci doomu aadama mu nekkee kaw suuf am nelaw doomu aadama lu mu gis doxamu ko da ko daan laaj ci ci biir malaay dañ ko ko tekki booba jëlagu xam-xam ndax misaal na ko nee na dem naa ba àgg ci lu mel ne garab boo xam ne lu mel ne lu juuru ma toog mu fekk ko mel ne ñaari tànk ci naa julli toog ci menn tànk ma dox ci menn tànk rafetullah laa naawu ci ci naa julli xam man na ko rafet ma sax mu ne boobu laa xam ne ci biir dama ko xam-xam ndax dafa xam li jëm ci ñun tamit xamuma ko moo tax nag loolu yëngalu ma waaye su jugee ba romb juróom boobu nga asamaan si yonente bi salaa salaam amee na ngelaw malaayika boo xam ne lu jublu it mu gis ko na ko jibril xam ne da ko xam mu dem ba romb juróom ñaari asamaan yi ba àgg ci dërëtu mu taa fa nga xam ne mbindeef du ko weesu fa nga xam ne fa la buraas yem fa la jibril yem yonente bi salaa salaam ci mag ko suñu borom man moo ànd melaw leneen loo xam ne du malaayika du nit foo xam ne ëpp maqaama malaayika du yonente foo xam ne ko gën a ba nga xam ne àgg ci wax xaaba xaw si mu awat naa fa awaa laa ma awaa foo xam ne ko wax julli mu ngay wax ci biir foo xam ne dem ba àgg ci li wax al fanaaw ak ba nga xam ne mooy ndëgg ci fanaaw dem ba mu bind moomu muy xaqaan yi moo ko delloo ci aw melaw ko mu tuddee suñu borom tabaraka wa taala saytu baat saytu na amul kan ndax lépp na lépp boo xam ne doomu aadama di dem foofa nga xam ne keroog doomu aadama dañuy nuyu dañu am ci dund arab yi misaal nga xam ne seetal def na leen ñaari xaw ñaari ak ñu solo buñ takkee buum ci diggante bi mu séddale ko muy ñaari xaw xaw benn moo représenté lépp luy mbindee lu yàlla di beneen bi rek mooy mooy suñu borom rek ak am naa ñu téye ba ak ci nawet ak ci turam moom nga xam ne mu dem ba nga xam ne moom mooy mooy buum bi nga xam ne moo féete ci seen ñaan mooy boppataan ak xaba xaw si awat naa awat naa ba mooy ba mu demee ba jeex ba nga xam ne boppam nekkatul téye def suñu borom ba nekk ci borom ba nga xam ne nag ci tamit suñu borom moo ko may may gën a nekk waaye boo xam ne gën a ëpp doole nam na lool mooy am ji moomu bi xaqaan yi ba mu génn ci fekkaat ci naa ji ci dër mu taa mooy wala fa dara aw lan dafa koxraat wala fa dara aw na lan dafa fara ci ci dër mu taa ci nga jëf ma wa waaye tam dama gën ma wa ko ci dër mu taa ko ci lu ñëw ko bu rax nekk ko ñene ñu mu doon ko ko loolu nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala may na ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu agoon ko ci aw naka woo xam ne suñu borom ko mënal ahlu tasawuf dañ am na ci yoo xam ne dañuy def ba dañuy rañaan seen rañaan wuti nag rañaan Muhammad waaye ba dañuy rañaan daañu ci biir maanaam ay coon ak fitna crise yoo xam ne doomu aadama bi ñu nekkoon ba ci kaw ci dem ba nga xam ne li ñu am ci maladie nga xam ne maanaam mooy angélique li ñu am ci ci malaade nga xam ne mu cosaanam mooy roof mooy def ci nga xam ne dañuy toll ci gerte boo xam ne dafa mel ne asamaan juróom-ñaar dañ leen koo sëf nga xam ne mbooleem karaw ku sax ci yaram dafa mel ne dañ koy daaj fu ne di ko daaj di ko daaj ba mu dugg ci yaram ba nga xam ne yëpp nañu loo xam ne xam nañu ne luy nekk nekkeetul ci ñoom ba nga xam ne li nga xam ne moo taxoon ci ñoom ci li ñu doon ci aadama dañ ne ba nga xam ne li ñu doon ci mag la nga xam ne loolu bu ko ci liñ ci am ci kam liñ ci fàggu ak lañ ci jubluwaale moo def ñu yëkkati ko def def ñaaraan bi bu nga xam ne moo di rañaan nga xam ne moom la ñu doon ci rañaan bi yaram ci sabal sama rañaan woon moom un taxaw am na ci ñoo xam ne daañu yóbbu seen daal di ko def tërbiya di ko def tarqiya ba àgg ci loolu de te ñu daal def na suñu jàng xam-xam waaye sax ñu mu def sharia ndax daf leen ci jaare dañ koy jaare ci sharia bu ñu ko xam ci ndigal ak tere ba nga xam ne rek nañ ko ba nga xam ne dañuy xamal seen bopp bu yàlla di ak yàlla tere te ci yoon woowu dañ koy xamale am na ci ay misaal yu bari yoo xam ne jamono bi yaa ngi gis mu àgg te asalaama ba mu daal daal baraka bi ci laaj ñaare alhamdulilah jaay pour wér laaj rek
xam naa parce que ma ko misaale woon la waaye mën nañ koo def daal ci jàppal ba mu gën a gàtt li nga xam ne Cheikh Abou Adel Cheikh bi ci boppam nga xam ne mooy sëriñ bi Cheikh Abou Abbas bi Moussa te la gën ne ci yéen Cheikh Abou Abbas bi Moussa naan Moussa ku mel ne Abou Abbas bi Moussa benn nitu nitu àll ak sàmm su jógee ci àll ba dina ñëw ci moom bala ñu fekk fu mu àggale ko ci yàlla te man ñuy sëriñ loolu jaaxal na ma yooyu yoon yooyu yëpp ba tey ci fekkale alquran ba tey lañ koy defee ñi nga xam ne tasawuf mooy tax li nga xam ne neew mooy jiw tasawuf mooy tax bi gën a am solo ci iman islam la waaw comme lu ngeen laaj xam naa koy bu bari ci ma waxoon muy sëriñ na Aïcha radiyallahu anha من الجوار التي تجوار وقال فيه خير من ذلك الرم من الانسان لما لمت قالت هذه سيد سيدها فقاءت فسقطت فرقة لحم فحرق فظهر الله ما حد الشرف لانها لو كرهت لا بد من دخولها النار من الموضع ولا تجد هذا الجميع مثل صفة الرسول دي سيدنا عائشة رضي الله عنها يقول حاصل وحاصل وهذا حاصل donc lu mu ko jarat wala yàpp fët nañ wadd mu ne ko fii soo ko war a woon askan gi ngay askan ci man bu la dee jaari safara ci yema xeer muy laaj ne ndax keneen nit koo xam ne wax na baat lu mel noonu lu mel noonu dikkal ko te xamul wàccu gi sax diwu ko lan mooy jëm ma di ko xamal ne benn yonent bi salaa sama daf doon wane foofu ci melaw xaat ñaawaay ci kaw wax ko beneen saaba boo xam ne ci gis la yàlla génn ci gis ci waa saaba yi def loo ko ci kenn wala kenn ku ñëw mu ne la xaatalikul déedéet ba boo ne wane ñaawaay ci kaw moo tax mu concrétiser maanaam mu jëmmal kon kon bi ak ni mu ñaawe ni lum mu deret ak foofu yàpp mu jur ci wanaat ci domaat bi ko lekk ni mu bone ni mu ñaawe moom misaalu alquran misaale jëw muy lekk sa mbokk mu ñëpp domaat bi ñëpp la di ko lekk mu ñu la di ko loolu kooku tafsir la ci balaa alquran tafsir la ci balaa ak yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam dafay wane ne noonu lii juddoo ci baas jëw bi ci ci yàlla bi tax nit ñi muy wanaasu muy wane ne bu fekkoonte ne bàkkaar bi jëm yi ñuy mën a gis ne noonu lay ñaari bàkkaar bi tam lim ne la lim ko ne waccul mu xaaxal ko loo di waccu mooy tegtale tuub kon bàkkaar bu ko nit ki tuubul noonu la mel te soxale ko tuub bu ko tuubee nag mooy day def naa ne waccu na lumbu ñu tëj nit ki itam bi mu jëlee tuub na ko bal na ci doon jëw ba baal na ko mu daal di tegtale xam nga ne baat bi jëw moom ñaari bàkkaar ci nekk ndax toog nga yàlla ndax xala nañ yum la tere nga wax ci bu dul noonu wax ko ba wax ci jëmm gi nga xam ne jëw nga ko wax ko lu ko naqari te jëw mooy lan jëw ni ko définir mooy nga wax ci gannaaw nit loo xam ne bu fekkoon ba ko wax mu naqari ko donc bu fekkoon nga gisee da nga ko wax waaye rek boo ko ko déggee mu naqari ko rek loolu moom lañ tuddee jëw kon la nga wax am na waaye bu fekkee ne amul moom lañ tuddee buxteel bu fekkee ne nag li nga wax dafa am waaye bëggul ko ko wax buñ ko waxee mu naqari ko nekku ci nga wax ko loolu lañ tuddee jëw bu ko defee am nga ñaari bàkkaar bàkkaar bi nga li nga xam ne li la yàlla tere def nga ko muy tax ci sa lamin boo xam ne day tax sa xol te xol bu tax yi bare mu mel ne malaan bu tax yi dëndee faw ñu wax sabel ko wala ñu baxal ko wala ñu fekk ko ba mu bu dara naka noonu itam roo bi bu salbee noonu bu jilimee bare mën a bànneexu ci weere yàlla bare mën a dem àddina dana jaar ci ay jaarwaay yoo xam daañ ko ko póol daañ ko bëndati daañ ko ko sabal daañ ko ko fete mën naa yàgg te kenn na gàtt ba dëgëre nga xam ne ko nit ki benn ni mu taxale lam ñu ngi ci jëw mbokkam xolam bi ni mu jël jëm ca lu ñaaw la mu wax ak ka mu doon bu fekkee ne baru na lii suñu borom diggante ak suñu borom la mu mën na ma koo baal la nga xam ne nag beneen moroom jaam sama tool suñu borom du ko ko baal bu demee nag ca waaja balu ko ko wala ca taw balu ko ko bu ko jeex na mooy mu wàccu ba lu mu gën a bi lay bu fekkee ne nag lay nit ki jëw ko te mun loo ko def ci jaxlaan maanaam mun loo ko baru ba mu baal la loolu ñëpp bu ko def de la nga fexe ba tuub yow tuub bu bari xam ko tuddee nga wax moom bu rafet loolu mooy baaxaar te nga ñaanal ko di ay ay ay bu fekkee ne mu ngi dund ngay wax ci moom lu rafet di ko ñaanal comme bu daal wér yaram bu fekkee ne jógee nga di ko ñaanal al wóor di ko ko jox bu ko defee ko te mun loo ko def ci jaxlaan maanaam mun loo ko baru ba mu baal la loolu ñëpp bu ko def de la nga fexe ba tuub yow tuub bu bari xam ko tuddee nga wax moom bu rafet loolu mooy baaxaar te nga ñaanal ko di ay ay ay bu fekkee ne mu ngi dund ngay wax ci moom lu rafet di ko ñaanal comme bu daal wér yaram bu fekkee ne jógee nga di ko ñaanal al wóor di ko ko jox bu ko defee bu yàlla xeexee ñu seet li nga ko jëriñ ak li nga ko lor bu ñu ko feesee bu ko li nga ko jëriñ ëppee dara mu jóg a nekk sa njëriñ bu fekkee ne li ko lor moo ëpp ba nga ñu seet lan ko amee xaq lan ko ëppee ñu teggi ko ci bàkkaaram teg la wala ñu teg ko ci siñu jox ko loolu moo tax yàlla ci sallallahu nit dana def bàkkaar bàkkaar bu ñu ko àjjana nan la bàkkaar ñu ko ñu àjjana yow yàlla ñu yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ne bàkkaar ñu ñu ko ñu àjjana mooy nit bu ñu ko bàkkaar bi siif jëri ci daa la yoo xam ne tax na mu farlu di jaam mu farlu lu mu def xeet ko ndax ci bàkkaar boobu moom yóbbu na ko jaamu yàlla boo xam ne rëcc na lom defoon kon tuub na baal nañ ko bàkkaar ba noppi gis na gis yoo xam ne bu loolu bàkkaar ba du ko def kooku bàkkaar bi yóbbu na ko àjjana yóbbu na yàlla borom loolu mën gàtt ndax moom la maanaam ulama yi ak sahaaba yi ma wax sayyidina Abu Hanifa imam Abu Hanifa borom ñeenti mbir yi mooy jiitu ci kaale ak ni mu nelawee dañ maamu seet yi juddu gise naa ci imam Malik waaye man na ko mos ñaar ci seet xam nga ci seet def naa moom ku naa rek imam Abu Hanifa moom laa wax ne benn jaar seet yi nga xam ne moo bàq jar waa Badar yëpp jaru tasawu ba ak ci moom jaar ci jàll ci gis naa jëlee kon dem na ci sëriñ yi am tasawu nekkoon nañ ci fàq yi ba tax na mu kenn ci borom ñeenti mbir yi nga xam ne ñoom ñu jëriñ ahlu sunna bi suñu maandoo nee naa gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaaye na salafan jarra man fa anan mooy lebal boo xam ne dañ koy jëriñay ndax lebal dañoo bëgg mu ñu dimbal rek nga yëkkati sa alal lebal ko nit ngir dimbali ko ndax am la nga amul te ci ñëpp ay bokk la nga mën koo jëriñ te mooy li mu aajoo te ci boo ko joxee bu ko mënee am dan la ko delloo nga na nga yem foofu waaye bu ko exploité exploitation boobu nag ñu ne lépp lu xaraam la ci gën a néew xaraam la lu mu néew ñëw xaraam la ba tax li wax Abu Hanifa fi maandoon bu ko nit ki amee la mu ñëw di ko fagu du dugg ci këram kër bu mu moom la keroog taaxam wala këru néegam wala këru kërabam ndax du ma jëriñ néew ci naaj rek day taxaw waaye bu ko gisee beneen kër ca lay dem wala mu taxaw ci naaj waaye mu taxaw ci kër kooku fépp kooku dafa ko istixlaal ba kooku baal ko noonu laa waxoon pour bëgg leeral rek maanu Seydina Abu Hanifa ndax maanu
ndax bu ñu seetee ne kon Abu Hanifa meloo war na meloo waaye moom li ñu wax ne moom moo jëri ci sakkat tasawuf bokk na ci maandoom bu ñëwee ci fayu bor bu naaj bi tàngee du nekk du dugg ci kër ci muy fayu du bor ndax li nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam araamal na lépp guddi di jëy lépp guddi di njëriñ boole ba lay nit ki mu fay la ba noppi teg ci leneen araamal nañ ko mooy riba nga xam ne boo ko lebaloon këyit yu ñaaw yu màggat yu rab sart ko ne dañ koy fay daf lay fay këyit yu bees mu araam nga xam ne bu ko defaloon bopp rek nga xam ne seet moo ko seet yu ko day dagal waaye seet yaa ngi ci am njëriñ boo nga xam ne dañ ko ci di ñëwoon dañ ko seet commencé araam tax na ci ma ko boo xam ba buy fay ci bor du taxaw ca kew kooka day taxaw ca naaj wala mu taxaw ci jëleen kenn koo xam ne kooku moo ngi ci mbir bañ rek lebal bi mu lebaloon kooku dañ ko koy mu am ci njëriñ mu ne nag tasaw kon nan buñ ko jàppee xam-xam boo xam ne dañ koy jàng di ko wax lan mooy concret mu ne day ci Ahmad Bamba radiallahu taala anhu ci masal bi dinaan waxal ne ci imam Ghazali radiallahu anhu kon ci tasawuf ñu ne ñaata la ñu ne am na tasawuf fardu ayni te dafa dafa di ci ñu أركانه نعرف منها سبعة سلطا وجوعا واجتنابا بدعة وتوبة وسهرا وعزلة ثم استقامة من فنعم الخزلة وزاد سيكون ذلك ثامنا تقوى الله بعد المقابلة أكنت مسجد كنت مويلا كيف لم يجي لا أنت تفهم جسر نفسي مبقى تكون في تصوف لا يجيسنا القرآن لنا ما يلفظ من قول إلا لديه رحمة عشيد وجاءت سبع قوم بلا ذلك ما كنا منتهين كل كل ذلك وعي وجاءت كل نفس معها سائق وجهيل لقد كنت في غفلة من هذا فقد هنا أنت بضع وتقول لما حدث ثم أمنا القرآن يوم القيامة أم بل جام بجكي يقول نار مرأيت أن يلتق من الجلوس سيتم نحن أدنى بل بعد جلد الدنيا lu dul ràcc ba xatis ñaari laaj yi nga xam ne kii sa bopp lay yor ci lay sa bopp jàppal lu dul dégg nañu baat boobu xam ko ak la nga ci dund ko te bis boo xamee ne bii dekki nga boo demee ci sa bàmmeel mboolem lay waxoon ba ci jaay bi nga njëkk a jooy bi nga jugal sa lay ba keroog ba ngay xar xarale xar xarale yi nga xam ne moom la sa baat bi doon def maraay da ngay daal di ko dund te bu keroog bee da nga ko jàng te da nga ko dundaa bu keroog bee boo nee lu may dundee aw ma daa ñu ne la sa tax lii sa gëriñ bi mooy sa baax nga ne lii sama xel mi ñu ne la sa baaraam bii anam lii sama këyit ma ñu ne ñu ne la sa jàngaay bi dañ la bind loolu sama tàmbalee doxam jeex ci bopp la ko mënay day bindee woon te bu yow nag xëyaat ne boo xam ne taxaw nañu bu téere yi wadd téere yi wadd loolu lépp dana ci ñëwaale malaaka yi nga xam ne ñu yàq at it daañu xam sax li ngay xalaat ci sa xol duñ ko bind ngir yéen lay yàlla waaye bu fekkee loolu nga xalaat ci sa xol waxee ko wala nga ñëw ko bopp te tuub loo ko bopp lañ ko bind ñu gis na kon loolu lam moo gën a rëy ci bari cër yi doomu aadama yëpp ndax doomu aadama juróom-ñaari cër yi nga xam ne ay ndénkaane suñu borom jëm cër bi ci nekk am na bunt bu mu jàkkaarloo ci bunti safara waaye bunt ci safara yooyu bunt ba ca jàkkaarloo lan mooy ba ca gën a raglu mooy ba ca gën a naqare nit mooy ba ca gën a rëy mooy ba ca gën a xiif mooy ba ca gën a jege doomu aadama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama dana nekk ci waxtaan wax baat boo xam ne bu ko jàpp muy dara di muy ci xëy na lu dul reelal muy waxam dana ci xalambaay ba ko safara bu toll nii juróom ñaar fukki nawet ngir baat ko moo xolam nga xam ne am na baat yoo xam ne doomu aadama ci buy wax daf koy woyofal te fekk na sharia diisal na ko fekk na yàlla diisal na ko yàlla diisal na ko sallallahu taala wa sallam Seydina Abu Bakar radiyallahu taala anhu mi nga xam ne bu yonent bi ñëwee moom ëpp mbir ci jullit ñi fekk nañ ko mu wéet te ci la ma ñëw di ko xëcc di ko xëcc mbir bi bëggal laa ñëw di ko koy itam buñ ne ko yow ci jeex bi ana lu waral ci mu ne cër bii daf maa rafal ca rox waaye maanaam daf maa jiw moo dama dama su ma cee wax lu mu warul woon a wax nga xam ne kon lan ci waram ci bari yaram ci sallallahu alayhi wasallam nak toog ak sayyidatna Aisha am ngeen ni sax yëpp muy jël la woon boobu ba bàyyi daal yow la am na sayyidatna Hafsa nga xam mooy doon ci naam bu gar mas na ko tuddee tuddee Hafsa ci mas naa tuddee Safiya yow yaram ci sallallahu alayhi wasallam nee ko maanaam daa bàyyi ko ñetti fan sayyidatna Aisha itam li mu ne حسبك من تقدير هكذا ما نم تفي دال ci dak la won ni la tollu ci dal ni la tollu yaron bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wax na baat bo xamne buñ ko xamne ci jeeti dara ko waxal xat beneen jigéen ñëw na di laaj yaron bi sallallahu alayhi wasallam ay magala bu mu tëddee sayyidina Aisha ne ak bu du mbub mu ne ko xaxtandiko xaxtandiko mu ne na tax lu mu dara wad mu ne ko nga ni la ko wane lii boo ko wane ak woon la ma sa xaw nga jaari sa farat te askan gi ya askan gi man du ma ci man dara xam ne kon lan lu mën a lor doomu aadama la lu doy fa moo tax mu sallallahu alayhi wa sallam xam ne nii lan mën a lore ak baatu jiw gannaaw lan ne cër bu tuuti la te wax lu yomb la te li nga xam ne mooy góobi góobi kaay lan yi gën a bari nga xam ne jëw waxtaan bu neexee doole la ca fen lu mën a waxtandiku lu jafe waxtandiku la ndax nee benn jëm bu fenn lu dul fenn génn na ci génnam di yéeg di yéeg ba jot arab bu ko defee arab dana yëngu bu ko defee dana ne man maay seen jiw bu ne man maay seen jiw wax ba ngeen wax ne man maay seen jiw suñu borom dana ci bind laa nga di jëmm jëmm yàlla di ko rëbb malaaka yi di ko rëbb malaaka yi dañ ne dañ ko rëbb rek waaye xamuñu daañu ko rëbb ba saa taxawale de waaye jëmm yooyu daañu ko rëbb képp mu ko dañ koy rëbb xam ne kon seen jëw rambaaj wax bu la woon nga xam ne ak tagg nit waxal ko loo xam ne du noona donte lu rafet lay xëy na sax Bàkkaar ba rëyul noonu ndax lu ci bële diggante ay jullit la dañuy seet rek la ko tax a wax bu fekkee ne bëggal ko dara la wala nga fekkal ko dara la bu daan nga bu naaw loo dana ci am bàkkaar boo xam ne dana gis ëllëg fayam kon la mu lu mën a wattandiku la te lu mën a yàq la mais bu fekkoon ne sax nit ki ci waxtaanam bii waxul lu ko wëri waxul lu ko wóorul waxul loo xam ne nii jëw la waxul loo xam ne nii rambaaj la waxul loo xam ne nii ñëwul ci moom waaye waxtaan rek la waaye wax ji bari na te du wax loo xam ne nii yu jëmee ci yàlla la wala di delloo ci nit ci ngir islam la wala di tax a ragal yàlla lu dul wax ak mel nii rek la moom lañ tuddee alxasan te alxasan gàtt la bu mag ci islam ndax day gàttal xol te day fàttali nit ci yàlla ndax seen nit yi mu ngi sëmbër ci waxtaan rek nga nekk ca xolam te yow waxtaan bañ moom lay xalaat dootu xalaat yàlla ma wax ko julli sax mën na jege te xolam du bu duggee ci julli bi xolam du jënd fu waroon a taxaw mukk ndax yooyu mu leen wax mooy lañ xelam nga xam ne kon gàtt lan wala ko koy lim kon un kaso boo xam ne ni bii ñu ngi jëlee noppi maanaam néewal say wax boole ko ci comme ci kaso bëgg nañ ko ci dëgg ci alquran lañ ko tëj maa ngi suñu kaw ci daara bi rax bi ak bi wax yàlla ak wax yàlla bi alayhi salatu wasalam rek ci lañu tëjee baat boobu rek ñu ne nag nga xam ne kon jiw moo xam du dëgg la moo xam du dëgg boo xam ne ci gàtt lañ ndax jiw léegi jiw ci yàlla bu fekkee li nga wax dëgg la sax day xañ a baat bu fekkee ne du dëgg nag day alate te jiw alquran ragal loolu ko nit ñi nee na bu leen jàpp suñu borom wala ne allah xurratan li ay mani xam nga loolu bu leen jàpp yàlla mu mel ne loo xam ne rek moom ngeen di wane nit ñi ne li ngeen wax dëgg la rek bu ngeen wax rek ci jiw ci yàlla dafa mel ne da ngeen di waye far yàlla ndax di ko ma def tasxiir ci seeni soxla rek sayidina Saafi imam Saafi radiallahu anhu nee na fukki at ak juróom benn bi musuma lekk ba suur musuma jiw ci yàlla mu xam dëgg laa moo xam waxuma dëgg musuma itam wax loo xam ne nii lu amul la nga xam ne kon jiw lu foor la lu ñaaw la lu rëy la lu doomu aadama war a waxandiku la naka noonu rëbb rëbb dara boo xam lu ndëkk rëbb wala doomu aadama wala loo xam ne lu dund la ndax rëbb dafa bàyyi ko ci lamin te mooy saxal ne yàlla mere na lii loolu yàlla dindi wala dindi yàlla dal na ko bu fekkee nag da ko koo ñaanal ñaan nit lu bon wala ñaanal bàyyi ko lu bon musiba tax bàyyi na seen bopp yow nag am ci maanaam suñu borom boo ko mënee seen diggante nit yow li nga def bàyyi na bi ñu àtte seen diggante waaye bàyyi na morom daañu àtte seen diggante ndax bàyyi na li saxoon béjjël li ci def saxuñu béjjël ci sax béjjël daal di nëkk ci saxul béjjël yow nag daañu saxal ci saxal noonu béjjël dañuy saxal béjjël ci saxoon béjjël ñu ngi ay béjjël mu mbëkk ba lu ko mbëkkee ñu ko leen def ngelaw dégg leen ñu naaw ndax ñoom kenn toog ñu nit bu ñu am bàkkaar duñ dem àjjana wala safara waaye daañu seet seen diggante seen morom nañ ko jël rawatina nag doomu aadama bi nga xam ne moo lor bàyyi ko bi moo xam daf ko rëbb wala daf ko dóor ci loolu boo xam ne waru ko war a dóor wala bu soxare ko ci ñoo xam ne waru ko war a wala bu sàggane ko comme loolu ndax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na jigéen ci dem safara ci mun rek nga xam ne daf ko tëj ci néegam bàyyi ko bu fortaatu bi joxu ko lekk ba mu dee ba mu dee suñu borom daal di yóbbu safara naka noonu jigéen dina xam ne que moom boppam la woon lu ko neex def mu fekk benn xaj bu tiim kam boo xam ne dox daf ca nekk mu mar ba yàgg mu daal di fekk takkuun bi mu tasaaroo woon xar ko faste ko teg ko ci dàll bi root ci ceeb bi jox ko mu naan nan bi nga xam ne ne dee na ñu gis ko ci bërëb bi tëdd ci àjjana suñu ko laajee bi ngeen ci mu wax ne yërmande ji ma yërëm woon xaj boobu rek ba mu sam borom yërëm loolu ay mas ay am taal yu jeexal ci mën a am boo waaye xam ne naka noonu ci boobu nit ci salam yi wax na ci gàttal nit ki dañ ko ragal wala dañ ko bëgg dara nga di ko waxal loo xam ne ni lëwul ci moom yaa nga gis na la dañ ne ci yéen ci jëkk la kooku bokk na ci dégg nga loo xam ne ni dugg na ci biir tàgg lu weesu nee na jamono bi ma waxoon sànq sa jamono ci ay waxam yu ñu dara la gannaaw bu noppi bee fonk bi njëkk ñaareelu fonk yi mooy ban mooy xiif ban xeet xiif lañ jublu nañu seet lan mooy xiif xiif mooy safaan mooy safaan reggaay reggaay bu ne lan ak muy indi reggaay bu sëri abañ la waxoon naa léegi ne imam Shafi nee na ci at juróom benn ni di lekk mu ba jiw ndax nit ki xasee feetal biiram tayeen ak nelaw wala ko lii rek mooy ne ci xel yonent bi salaa sallam nee na maa mala mu aadama waa ak caram min bat yi doomu aadama bu la feetal ndax du yées biiram ne al maidatu bay daari maanaam mbaq mooy nii jàngoro jàngoro biir ak jàngoro biir régal bu yàggee ci nit ki dara sal bu dara salee ñu xol ñu xol dana xam leer xol dana ko wàññi dana ko sañ bu gëree bare nit ki leer dugg ci moom jafe naka noonu xiif noonu lay nate seytaan waaye bi dafa wax ne ci misaal suñu borom tabaraka wa taala ba mu bindee bakkan ndax xiif rek moo aay ci bakkan nee daf ne ko yow yaay kan man maay kan mu ne ko yow yaay yow man maay man mu ne ko ah mu ne ko waaw borom daal di koy dugal ci safara juróom-ñaari at génne ko ne ko yaay kan ak maay kan mu ne ko man maay man yow yaay yow dugal ko ci safara ba mu am juróom-ñaar bu teer génne ko ne ko yaay kan ak maay kan mu ne ko yow yaay yow man maay man mu dugal ko ci safara ba mu am juróom-ñaari téeméeri at génne ko ne ko yaay kan ak maa kan mu ne ko man man man yow yaay yow mu xiibal ko juróom-ñaari fan ni ko yaay kan maay kan mu ne ko man maay sa jaam bu sarax bu tuuti bu wér fii yow yaay suñu borom bu sell bu mag bi mu ne ko ah yow nag gànnaay gi lay mag mooy xiib yow ko kan xiib nga ragal mu ne nag kon xiib bokk na ci yi yàq bakkan xëy na bu ko dee wax laaj yi bari ñu war a waxtaane bii waaye jamono ji ci xaj ndax am na spécialité ndax am na xiif boo xam ne bii dana indi ndox am na xiif boo xam ne day indi ci xel xol nit di la ay hallucination ay ay xayalaat ay muy dafa nekk ci sa noonu dafa am yoon yoon bi nag li ko sosoo ak muy dëgg dugg xel la jaar nañu ci xam-xam yu leen xamal nañuy doxe jéego bu ci nekk ak waxtu mu nekk boo ko tolloo la lay feeñ la mu doon ak na nga war a gisante moom na nga ko war a gisee ba tax ñu saxal ñenn ñi dem ba ne war naa am docteur ñenn ñi nga xam ni war nga am docteur ndax cheikh marab bi xam-xamam doy na mëni docteur ndax dana ko jaarale koo xam ne bu aajowoo docteur te waxtu wu mu toll bu ko waxee lam gis dana ko nekk ko bakkanam toll ak la tax ak daannaay ba seytaane gisul ko ak lan la ko yore te itam day nekk xiif boo xam ne waxtu wu mu la nee lekkal la lekk lam la lekk loolu te lay yem boo ko lekk ñam moom la xeet ñam moom la lekk lay moom lay lekk te waxtu wu la ko lekk yoo ñi nga xam ne rek médecin bi noonu lay simbale malade bi ba nga xam ne ñaan yi ñu war a bañ jam lañu koy lekkee ak jam lañu koy war ko ak kan bi koy lekk noonu la koy lekk kon nag bu ñu waxee xiif xiif moom ci boppam rek xam nañ ne luy yar nit la koor moo tax koor bari ci yàlla boo gisee ñu naan seetaan yi dañ koy génn bu waru bu waru koor teroo moo di ne jaawaa yi ñu daan jaar ci doomu aadama di taw bay waayu dara tam di jax jaxal xolam bunt yi ci yëpp dañ koy fàtt ndax bunt yi ci yëpp li ko doon ubbi moo doon regaay moo doon ñàkk xiif moo doon am jàmm di tax nga nekk dugg ci foofu ak ci waxtaan wax lu sa yoon nekk lu sa yoon nekkul dem koo xam ne fii nekkul farata ci yow ñu nekk nga xam ne seytaan yooyu yëpp day woo nga jaar génne yi ngay génne moom tam ay pro la ak tam ak yoo xam ne yi waxtaane ko du sax rek waaye dañ ko gàttal ci noonu lekk nag di lu ñu naan lekk rek alquran nee na alladina kafaru yatamattauna wa yakuluna kama taakulu al-an'am wa naaru kullam gaa ñi nga xam ne yëfa dañ maanaam gëmul yàlla dañuy lekk di bànneex di xéewlu nit ñi di xéewloo safara gën ñëw ci ñoom loolu dañ ko laal sama nee na ak di gëm yàlla benn bët lay lekk ci gëmul yàlla fukki bët lay lekk maanaam day lekk na ko neex rek loolu dafa xam ne nag ak dunya ak tëdd moom mooy jàll ci kàddu yi adduna mooy kaso jullit di àjjana jégg àjjana ci dara lu ko neex mu def amul limite fu mu bëgg a dem dem fu mu bëgg a wax wax lu mu bëgg a xool xool lu mu bëgg a fekk fekkee jullit bi nag am na fu mu yem ak fu mu sañu la dem loolu bu waral moo tax ñu ne ci biir moom mooy affaire yi ko tëj waaye li ñu doon xiit moom bokk na ci constatation te ñu ñu ñu ko ñu yàlla bi sallallahu alayhi wa wax ak suñu borom tabaraka wa taala ba tax ñu ne ci aaru ambiya yi fii mooy rambu yonent yi alayhi salaatu wa salaam xam na kon loolu lépp bokk na ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole ci benn kàddu ne xayru umuri awaatuha wala awsatuha wala awsaatuha li gën ci mbir yi mooy li gën a ci doomu nga xam ne kon lekk ba lekk jeex li gëpp lekk bu bàyyi bu ñu toog ba kanam ba lekk ba wër ne suul na ñu dem ci ba waxee ci xoqaan ne kaanu yaxuduna farka rizna shiban min al xalaay min abdaad mu tibaat nga xam ne am ci foofu ñëwee konte woon nañu benn njënd bu ñu war a njënd moo xam wax bu ñu war a jàng ci alquran la wala ay astaxfirullah wala salaam ala nabi wala ci yàlla wala ak diira dara tax mu ne ci yéen mu faat leen benn nit loolu ak lekk ba lekk donte li ngay lekk na mu dagal lay tam yooyu yëpp ñoom boole woon nañ ko ci sabab bi musiba yi sabab yi nga xam ne mooy indi doomu aadama musiba loolu lépp kon nga xam ne kon gannaaw ñu dagal bu ëppee noonu lay loree roob ak xol lu xaram taxul ñuy wax lu xaram moom mooy cosaanam ndax dañ ne kul ma chita taf al mislahu wa xaalidan man chita taf bi shaklahu lu la neex lekkal mu la neex ngay mel maanaam boo dee lekk loolu daf lekk kër ba mu dagal mu dagal mu ne ngay mel mel bu bon mu ne ngay mel boo dee ku ne nga àndal ku ne nga àndal mu ne ngay mel maanaam bu fekkee ne chef la di ngay àndal mel dina mën ko mel bu fekkee chef la di ngay lekk di dina mën ko mel ndax lu xaram seen ngi sa biir daf lay xiir ci mooy daf lay xiir ci lu yàlla tere daf lay xiir ci lu lay lor ba la muy rey bu reetee garab ga nekk ci yow pour ba ci sax mu ngi nekk ci yow boo ñaan mu naan yàlla yàlla bu doon am yàlla ci maanaam yàlla tere boo tàngee say loxo seytaane tàllal loxoom boo ne suñu borom yàlla na nga defal nangam loolu waxoon ni loolu garab jëkk saxee daal di daw dajaloo dox sa diggante yërmande yàlla bi di ko fekk ba tax na kon lekk ndegam lu dagan moom la ñu takk limit ak li nga xam ne lu xaraam na wala muy lu si sàkka dina am ko dara radiyallahu taala anhu dafa am benn benn jaamam bu moomoon jox ko mu taw mu naan ko bëgg ci toog mu ne ko waaw lu tax laaj loolu fu ma ko jëlee te dama daan lu ma la jox rek nga laaj fu ma ko jëlee mu ne ah waaw su ma ko fàtte woon foo jëlee loolu mu ne man dama gisaa ne lool te du ma tudd tudd benn waaye bu joxoon ma xaalis loolee ci la ci maa ngi ko denc jënd bu ci laa ko jëndee dinaa bu ma ko daal di ab baaraam bu ko gën ngeen ba coow ba coow ci ba gën a yëngu ci dara mu ne suñu borom teereel na lii laa am li nga xam ne du gën a ci fëtër yi am yàq yi garab bi mënuma ci dara waaye tiit naa ko dal di nekk balu suñu borom tabaraka wa taala xam ne kon nit ki bu dee dañu jot nekk melawu ñu bu jot bu ko jot ñu ñu dugg ci moom. naka noonu nga xam ne kon rek gaay dafa bokk ci melaw gaay yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan fab ay xeer xadis boobu am na ñu wax ay wax waaye topp nañ ko ba nga xam ne xasan la tax ko nii ci biir bi takk ci morto ngir xiif xam ne kon xiif dana selebal jërë na ko wayal dana may jàmm xol te dana may jàmm kon fekkal nit dana ko leeral xam ne nit ki naka noonu wax bu muy gën a woor lu mu gën a bëree woo koor gën ko saxal te ëppul ba néewal doole ba tànn ko tàngoor tàngali ko tàngoor rek na la xolam gën a leer na la ruuxam gën a dund moo tax kon xiif li leeral xol waxoon naa ne ak fii fii nam façon fii fii na ne yaram bi sayidna abu sayyidatna aïsa nee na yaram bi bisalaat bi mu leer rek mu mu mu mu ne léeg-léeg yoon yu bëri daanaa daanaa jooy ngir yërëm ko di tax sama loxo di teg ci biiram di ko raay naan ko waye falal sa bopp mën nga lekk tuuti mën nga fab tuuti ci mbiri àdduna yóbbu loo ko ëllëg ban sa lor di wàññi ko mën nga am sa ngërëm sa borom te doo àgg bii bu ko defee yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf naan ko Aïcha sa mbokk yi nga xam ne ñooy umul ak yi mooy juróom yi gën a xool ci yonente yi nga xam ne ci la mbokk lu mën nañu gën a metti bii te bëgguma leen a xëyaan sama dara bi yéen seen dara ñu mukk rus naa leen a xëyaan ma teew ñu teew ñu muñ ma muñ loolu ñooña nekk nañ ci di muñ ba muñ ci seen borom te borom bët ci ñoom gërëm leen teral leen teranga bu mag bëgguma su mbon xam na teranga joojee ñu ngay topp dara ci àdduna ñooña suñu borom may na leen may yu rëy alors jëra fa moom yoo xam ne ngir ëllëg la defal na leen jëf yu rëy rus naa bu ma neexalee dara sama dund ëllëg ma manqué leen loolu dara jëral na ko te muñ fa ñu néew bànneex ba xaw bànneex bu gàtt bu dog mukk moo gën bànneex ci bànneex bu gàtt xam la fay day yem wala ëllëg ëllëg la nekk gàcce te mu ne tuut naa fekkal yàlla ci salaat la ñu ñu tëj ci génn leesa boo xam ne maanaam nit boo xool la lañu ci dara ba tam bi marqué cër bi marqué ci yaram bi waaye bu ñu masaan ba di jël jiital dara day day ñàkk kon bu ñu nee xaw ñaareelu fonk yi moo di xëy mu ne ñetteel dara mu ne gis naa bu ko ati ba sa nekk gudaa gudaa mooy lan mooy loo xam ne yéen a gis boo di sallallahu alayhi wa sallam sama bopp ci diine man seet na mu demee ndax loolu alquran nee na comment attaque mu rasul xamul ko comment naa am am fan defoo lépp lu leen yoram bi di dikkee na ngeen jàpp loola def lu mu leen tere na ngeen ko bàyyi yàlla ne mën ngeen rasul dafa daa baax laa képp ku topp yoram bi topp nga yàlla سيدنا جرير رضي الله عنه هناك المنع هذا بشيء من كتاب السنة نحن خمسين من كتاب الكتاب القرآن لك الحديث يقول كتاب ومن كتاب ما نمسك جرير هذا ما نمسك في القرآن خمسين سنبرم حمل نرو يا رب السلام أن منك وأن يجب الرأي وأن يجب الجنة من الكتاب تصور وأن يتصور خيرا من كل هذا يا سلام ثم تتبع من نمسك جرير ولا فرق أجمل فقط برام لك أمر جديد وفقط لك أمر الشوق لأن نمت برام بدرك بالكل ولم يصل على من أنا من أحدث في ديننا ما ليس من فهو عليه رادي أو ما قال كيف وحنا سخنا يكون دين دي لو حنا بوكو شيء لا يقول جل وعلا خير نحن برام كنا نس جن جد جد جد ما نسأل الله تجيب ما من عليه رادي وجب القرآن يا أمنا يا عارف بالله suñu borom daf leen a may ak géej gi ci alquran may leen ak dikk ci yaram bi ak xam te dina am ni nee na dugal naa sama lam sama biir dugub mooy noppi naa wér kon sax xel yi ak baadu bi na xëy junni junni xam ko ko dugub sama xaw فهو حق المعبود بل قد أدي رسالة جلست عليها أنا حكمت على أهل التوراة بتوراتي وعلى أهل الإنجيل بإنجيلي وعلى أهل القرآن بقرآني ثم كلام لنا إذا أنا أتيت waa tawreet ci seen tawreet waa injil ci seen injil waa alquran ci seen alquran te amul ñena laysa indana shay'un akharahu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah abdahu fadl fi kitabi amul dara lu leen dina dama jéeg ci xeet xam-xam lu lu mu wax dina ñu ñëw waaye su borom bëgg a kégg rek ci alquran loolu buñ ko delloo delloo ci li Sidna Abdoulaye Abbas waxoon ci aaya bi ñu waxoon ne الله إن خلق سبع سماوات من الأرض مثلهم يسنى في الأرض بينهن وهو في وجه لك بعضهم عبد الله قد سيدنا أبو هريرة بن يوم ورن صلى الله عليه وسلم jëlee naa juróom ñaari mbir xam-xam lay bi parce que naa li jëf moo ko ubbi woon rek ñu rey ma mooy tegtale xam-xam yooyu kon nag ñooñu xam li ñu xam alquran dégg gi ñu dégg diine ndax dégg diine rek mooy dund dégg alquran rek mooy dund dégg boobu ci saxaaba yi am ak xam-xam yu bari ñu ci génne da nga xam ne lii dinaa bëgg rek ne yoon sax bàyyi mu di yar ba ci sax bu naa leen am suñu am-am tax na ñu ragal ko ñu ragal xuus ci maanaay alquran ndax liñ xam ni mu bëree tam yéen la galaax ko tax ñu ragal ko te waxoon naa ne li gën a tax saxaaba yi ragal di dugg ci aaya alquran wala ci aaya tawxid wala ci borom yi moo di doomu aadama wax boo xam ne ruux mu daal di génn jëmmam ba baaraam sàng muy sedd foofu mu génn ak sa adduna nekk ci ak sa barsax di ko yóbbu te di ko guddee su ngoon day ubbi day muri ci raay li nga xam ne moo doon fekk maa ngi def sa mooy moo doon lan la xam ne nga xam ne suñu xaaja jamono yooyu day jàngoo jëfam yi yëpp jàngoo secret yi bu boobaa yi mu façon ci maanaay alquran ak maanaay tawxid ne loolu dëgg la te fekk mu xam ne kooku nag la kumpa yi mu ngi boobu jàng ba nga xam ne loolu ay may la woon du woon noonu ay lu mu tekki ak ak réer réer la woon day tax mu daal di ñaaw njort ci boppam dana jàpp ne li mu façon lépp yi dam yeneen daf noonu la demee ñëw la bu ko defee mu ñaaw njort ci boppam bu jeexaalee loolu daa ñëw rek moom safaan la ndax léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne na ngeen am seen njort ci yàlla ndax suñu borom kat mën nga féete jaar ci fa njort fa ko njort tam féete استخبروا بانه عندهم عديد من خير وشر به من نقص تبارك وتعالى الجنان ومتحنا صحابي رضي الله عنهم في من التوحيد وغيرهم خمود في في القران الايه القرانيه لولا تعرف رب الله يجرى الاسلام بل تشكو فيه لولا جرى كن خم خم برك ما تك roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu roy rek jëf yi ak ci melaw kaw yi waaye xam ay jikko ak melo biiram ca tam nga la yàlla dox ci lu mu wóot la nga ca doon nga xam ko jaare na ci la tëj ba taxaw nit ki jóge loolu moo tax nag nit ki ngir mu roy yeneen bi zahiran wa batinan dafa war a def ci loolu ndax jëf jëm ci nga xam ne kàppar na di julli te xolam bi añaan nekk ci bëgg àdduna nekk ci bëgg daraja nekk ci bëgg xaalis nekk ci wala bëgg ñam nekk ci wala bëgg waxtaan nekk ci wala bëgg a seet li nga xam ne moom la nit ñi nekkee bëgg bañ ko ko seet lépp nekk ci wax di def seen boromam ñaar rakka yu julli junni rakka yu julli fukki junni rakka yu julli li nga xam ne xolam bi xeex naa raag raag xol yooyu ba nga xam ne mel na ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaane ak ni saxaaba yi meloon ak tabi ona yi ak ulama wu antoona yi ni ñu raxamtee benn rakka ci yu gën a xam ne junni rakka ci ëpp na diggante asamaan ak suuf ki nga xam ne nag moo tàggat boppam ndax suñu borom may ko may mu judd rek tax ay ay jikko mat mel ni amee jikko ñeneen waaye gannaaw suñu borom may na ko kattan ak xel mu gis way jug ñi ñu jaare ko yoon wi mu tàggat boppam ba génn melo yi ci moom ba am melo yi dem kooku moo di yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg dëgg dëgg mooy am ci ay jaamoom façon fayin mu xeetoo fayin ma ñuy fay yonent bi loolu nag mooy tasawuf loolu moo tax kunu maanaam tuub yow tasawuf daal di war moo tax daal di ne ama tasawuf fa fardu ay ni ne tasawuf far farata yi du ra du war di di lu ma ci jul bu nekk ci sa junni bopp tasawuf war na la ndax tuubu tasawuf mooy nga seetal sa baatin ba mel na nga xam ne mooy di ko yi alquran santaane di ko jàng ko israel da lay ci loolu farata di pare jihaad jihaad ak sa bakkan farata di sàggat nit ci ñi ñu ko am tasaw ci defee ba di wéet ñoom donc di seet la nga xam ne moom la seen bakkan dana bëgg ñu di ko ko xañ di xeex ak moom ay at ba mel na leen gën a ñooñu nga xam ne dañu gën a xam ñu yoon di doon dundee ak saaba yi ndax fekk lan rek la ci xam-xam bu islam bu njëkk bu ñu waxtaan wax ne fu daan bakkan ñu di di sànni ku dégg diina la moo di xam ne diine tëj yi di làmb lépp mujj nag bi nga xam ne nag xam-xam yi ball na ba pare ñun ñu aajoo jàngal leen ko xam-xam yooyu bu ñu nekk sànqaasoo ci beneen ba ñu ber xam-xam bu nekk nga xam-xamu boppam booba li ñu ñëwee daal ñu lii mooy sax lii mooy tasaw lii mooy tawxi lii mooy nangam lii mooy nangam te lépp moo doon xam-xamu diine bi rek benn fokk xaw nga di bàttal sax rek na nga xamee muy filee nañuy waree nañuy jaayantee nañuy téye nañuy attee ñaar ñu xuloo nga xam ne loolu rek dañu jàpp ne mooy islam ñu daan jàpp ne ñu rek mooy islam daal di ci nag leneen lu moom nga xam ne kooku leneen yëpp daal di ci la yem mooy li ñuy wax ci wàllu sa bor ni ko war a nekk xam nga ko ndax diine lépp diine aw diine la xol la aw diine la ki nga xam ne moo xam li yàlla bëgg ba diine ji ba tax diine ji ñëw te moo di ci koy xol bi xam yàlla yi mu soobu yoon woowee moom lañ tuddee taarif mooy taarif bi nga xam ne moo di ci yoon ñu def jihaad nag jihaad bi nag jihaad bi seytaane jihaad ma al hawa ba ba sama moom ba am mënu ne bi nga xam ne moom la ñu santaane mu dellu si nag calcul biiram ci zahiri sunna kooku mooy kaamil daan waxtaane al kaamil bi laa yëg muy bari yi noor a war a yi kaamil mooy nga xam ne li mu xam xam bi mu xam yàlla ak sañ-sañ ñi ko yàlla may ak kàttan yëpp bu tee ni muy jëf ci zahiri mooy li ñuy def bu mu ñoom dara jël maanu bu maanu ak mat bu mat ak ñaral bu muy ñaral la ko yàlla day jël saa day li nga xam ne moom lañ doxal ci yeneen ci ñu ko mën mën moo xamale sira yi yonent bi ni ko saabay xamee ñoom ñi nga xam ne acte bu ñëw bu alquran bu ñu xajju dañuy xam circonstance la xewal ba mu xew xam tam la tax yonent bi def ko ak it fam ko yemale fam ko teg ak waxtu bu ñëwee bu ko defee dañuy dégg diine loo xam ne ñu fekkee jamono ñu ñëw seen gannaaw ñu ko dégg ñu fekk am mulaataat yi nga xam ne tax nag moo di fekk ni acte boobu yëpp loolu mooy may dégg koo xam ne ñeneen ñi ci def ci jamono ñu ñëw gannaaw ak ñu def donte wala loolu am na ci mbir yoo xam ne xam nañu xar yu bëri yoo xam ne ñëpp ci saxaaba yi xamuñu woon kon dana xam ci saxaaba yi ñenn ñoo xam xar yu boo xam ne yeneen saxaaba yi xamuñu woon ñoo xam ne saxaaba yi xamuñu bi nga xam ne ne xar yu après nga xam ne waaw naka la moo xam ne laaj bi lañ ko dabaatal kuréel yi nga xam ne ñoom lañ planté bi ko bu ci nekk sa xalaat moo di wax libre arbitre ak prédestination maanaam nit ki bu jàppale si doomu aadama libre na bala ko tax mën na koo def te bu libre mooy tax jëfam yu bon mu lay ci bugal jëfam yu baax mu lay woo ca ab yoon ndax bu libre bu ñu ko xam ne kon jëful daanaka yàllaay def kon nit ki jëfam yu baax jëru ko dara jëru ko ko ndax jëful dara yàllaa def jëfam yu bon war ñu ko ca lakk war ñu ko ci mbugal ndax jëful dara yàllaa def gannaaw yàlla rek lay def doomu aadama libre ndax amul benn ñu bëgg ndax noonu la wala doomu aadama kay dafa am lu jot mag